alors vendredi on était autour de cette même temps mhm. ci lañ waxee woon Cheikh Tidiane moo ko waxoon ne moom li mu ragal ci euh, final bi. Mhm. moo di nit ñi mën nañ bëri trop. Mhm. te suñu bëree trop est-ce que dinañ am sécurité. bi jàpp alors ñun on se pose la question Cheikh je propose on regarde le petit déj de vendredi après ñu ñëwaat àggale suñu sport. mais coach yaa ngi naan danga nga ragal au niveau de la sécurité euh, lan moo tax nga foog nga ni autorité yi dinañ jël matukaay ci waa comme final la dañ koy yàgg wax mais euh, maanaam sécurité bu doy bi mhm. dañuy wax dañuy dinañ communiquer la ne non sécurité waaye du doy ah je comprends que y a la campagne. y a la campagne. sécurité yëpp a ngi moom la léegi te loolu bu amul. man je connais supporter wu ñaari équipe yi. Mhm. pour dire vrai ñaari supporter wu équipe yooyu mooy il faut faire très attention. serait-il pas possible ñu décaler tuuti date bi cette finale la. du ñu mën a décaler tuuti date bi. Euh, ba ba nit ñi politiciens yi. non parce que fi mu nekkee euh, c'est trop tard. waaw c'est trop la c'est trop tard il faut ils vont jouer. Mhm. mais li ma lay wax nii. Mhm. damay bañ bi ni ñu toogaat fii ba dañ leen. sax ngeen ne ma Cheikh waxoon nga dëgg ñaari supporters. man dama leen man daal man régal naa leen. Hmm. te fan yii da ngay gis nag <laughs> looloo ma si xaw a <laughs> ah, da ngay nekk di ah, gis da tooñ Père rek waaye da ngay gis. ma ngoog lii lañ fi waxtaane woon vendredi donc finalement je me dis euh, li am nii euh, kenn xamul tax lu lii intéressant mhm. euh, extrait la sax manoon nañ ci gën a yaatal parce que waxtaane gën a yaat lii mais li tax mu intéressant xat moo di ne Cheikh Tidiane Gomis sportif la. Mhm. football na journaliste sportif la di topp football su amee autant d' information ci ñaari équipe yi war a football mhm. am ci autant de crainte mhm. que ni mën na am débordement final bu toll nii ñi nga xam ne ñoo dénk ñoom lañ dénk sécurité wu sénégalais yi war nañ am lu ëpp loolu ci information te am lu ëpp loolu ci information moo waroon a tax su fekkee ne sax stade dañ fay def mille policiers mhm. ñu def fa mille policiers et malheureusement j'ai l'impression que ni Cheikh Tidiane information yi mu amoon bu mu suscité woon ay crainte mu wax ko exprimer ko publiquement ñëpp dégg j'ai l'impression que ñiy gérer sécurité wu sénégalais yi amuñu woon les mêmes information wala bu ñu ko amee aussi négligé la